waaw xam nga aatu mooy Ousmane aatu mooy Ousmane waaw aatu mooy Ousmane xisbu tarqiya mooy firi kuréel gi nga xam ni yéeg rek mooy seen it jëm ci seen kilifa jëm ci seen borom boo bokkee ci ñoom daal ñu yéege la maanaam yi lañ yu jëm ci étage bi etaas bi mooy xaadimu rasul jeex na xisbu tarqiya escalier la boo ñëwee ci groupe bi bu lay yéegale ba nga yegg ci etaas bi ci kaw te mooy xaadimu rasul moo tax dégg naa ñu ne Serigne Mountakha da daan wax ni ne bu tarqiya samp sëriñ Touba la lu am solo la samp Serigne Touba la Euh, li may ñaan nag gis naa ndeysaan wóoru ma nag dama koo dégg bu ma juumee nañ ma ko baal dégg naa sëñ Muntaxa ko jullee ah? soxna si nee na muy lu wér kon ndaw see ko wéral man waxuma ko <laughs> xam nga euh, soxna si sëñ Muntaxa def na ñetti affaire yu ma marqué ñeenti affaire ñeent mën naa ko def sax juróomi affaire te su ma ko toppee sax muy milliard affaire mooy nelawu seex beccu cuun sëñ Muntaxa ku baax la ku baax la seetul beccu sëñ Saaliw Mbàkke la xool Muntaxa ku baax la gis nga man ku yàlla ñor daara ñor la ñor nga ma ku yàlla ñorul ñoroo ma boo doon sama baay faalewu ma la bu dee sama ndey faalewu ko mais sëñ Muntaxa ku nelaw biti réew fekk maa ngi yéeg dinaa ñëw ci aatu de maa ngi yéeg ci suba gi fabiris Ndiame ne ma waaye yow atte Béthio génn na dañ ko war a arrêté xawma la lan ñu war ko jàll ci journal bi nekk fañ doon atte ñoom yàlla atte na ba jëlee fi Béthio ku yàlla suturaal kenn du la toroxal sëñ Muntaxa ni nañ mu ko indi Tuubaa fala mbaax yam koo bëgg sëñ Saaliw koo bëgg sëñ Tuubaa fu ñu denc sëñ Saaliw ak sëñ Tuubaa Tuubaa fu ñu la denc Tuubaa denc nañ la ci dencukaay ba daggal ko àll bu rëy ne ku nelaw ci ñoom ñu denc la fa li nga bii sëñ Saaliw dina ci bég sëñ Tuubaa dina ci bég ndax taalibe sëñ Saaliw la sëñ Saaliw doomu kan la ah xaadima rasul sëñ Saaliw bu bégee rek sëñ Tuubaa bég lii sëñ sëñ Muntaxa Mbàkke def ko yabal ko sant Mbàkke moo ko jullee moo ko taxaw sëñ Muntaxa kenn gënu ko man maa la wax lii man Iran <coughs> man na gis nga fi nga may gis nii ginaaru kenn man nenul ganaaru kenn nenu ma su si comme ça nii laa mel ganaaru kenn gudul yàlla nenu ma na leer noteel ku baax du def loolu ah muy benn ñaareel ba sëñ baara jël xilaafa gi maa seetaan daje bi kenn waxuma ko sëñ baara mbàkke ay doomam sama xarit eh, samay xarit lañ ñoom sëñ fataa mbàkke bu cees samay xarit lañu doomi sëñ baara yi ba ñu woowee sëti xaadimu rasul yi ñu toog ci kanamu sëñ baar bi mu jëlee xilaafa gi maa ko seetaan sëñ muntaxaa solul mbaxana da ko uuf yooyu ci loolu ci li ma neex la bokk nangul nit cërëb wan ko ne ko nangul naa la ko noonu la sëñ muntaxaa di moo tax ñépp ko nangul ñépp ko nangul ñépp a ko nangul sëñ Muntaxa kenn lànkalu ko ñépp a ko nangul parce que moo nangul ñépp moo nangul sëñ Tuubaa ñu nangul ko waaw moo nangul Xaadimu Rasuul ñu nangul ko man laa yetteew laa yuttaa ku dul toppi kenn du la topp coow yu bari rek mu uuf mbaxana mi def bopp neen billaahi wal kitaab yaakaaruma woon ne sëñ Muntaxa bokk na ci ñu war a doon xalifa sëñ Touba billaay fooguma ko ndax ni mokkee biñ ne moo ko doon dama tiit déglu leen ba ñu yeggal mu ne ko mbàkke ñu ngi ci sa kanam ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi sa ndeyjoor ñu ngi sa càmmoñ mbàkke loo wax rek loolu la ñuy def yow rek la ñuy déglu mbàkk kenn du wuteeg yow loolu neex na ma torop man bëgg naa nit kuy joxe cër torop di nekkee xalifa sëñ Bàmba lay doon sëñ Sidi Maxtaar jël xilaafa gi bi sëñ Baara nelawee bi ma gën a neex ajjuma jëñ daji Tuubaa te président ñëwoon te jumaa ji xawoon am mbooloo sëñ Muntaxa wàññeeku jullee ci këram bañ nen waxoon nañ ma ne def ci émission ma ne leen maa lànk parce que mbir mi am na njiit ki ko jiitee mooy wax ñu dem ca cérémonie ba ma seetaan sëñ Muntaxa mu ngi toog ci suuf ga ku benn ministre daf ma oo fekk maag Pape Cheikh Sylla def commentaire u màggal gi cérémonie bi bi ñu moo woo ma ne mais Iran kontaan na ah, parce que ni nga doon commentaire kontaan nañ ci ah. ma ne ko man de ma ci yow mu ne ma lu tax ma ne ko sëñ Muntaxa ni mu toll ci yàlla toll ko ci alxuraan toll ko ci bëgg sëñ Tuubaa toll ko ci bëgg xalifaam ak ni mu toog ci suuf uuf mbaxanaam di ngay boo nitee woon ci suuf ngay toog ma ne ko man de bu ma ñëwoon duma toog ci kaw fi mun taxaa toog laay toog. moo ma gën a gis kaw ti toogu ca jël suuf toog ci nekk ci kaw lay mujj nekk sëñ Muntaxa mi ci suuf ci kaw lay mujj ku muy toogalati ci suuf wax naa yàlla seet ci ko wala yonent bi wala maamam mu ne mais Iran yaa ngi déconné ah ma ne ko yaa njëkk a déconné ñëpp xamoo dara ci àdduna keroog def ni euh, bu ma xalifa bi mayee dee ma lu ma leeral sëñ Sidi Maxtaar ni nii dégg ko ñu ko bas ko wax ko mu ne ko dama bëggoon boo ma ko mayee maam lu ma leeral mu ne ko ci bisimilah mu ne li fi xewoon keroog ci àjjuma xat-xat yooyu damaa gis ne rek dem sama kër jullee fu jumaa moo gën gannaaw fi xat na lii rek la woon waaye yàlla du tëral sëñ Tuubaa seytaane rendil ko ko seytaane di dekk di jaar ci sëñ Muntaxa xalaatuma ko mukk fan yi maa ko dégg mu ne sama bët yi gisul kenn ku du sëñ Touba sëñ Touba rekk laa gis loola it neex na ma de ca cérémonie ba ak bu ma neex masaalikul jinaan bu ñoom papa makk yu fay makk yu fay nag jàmbaar la neex na ma lool parce que xam nga lu ma neexee dafa am caractère bu simple man fulla damaa neex ci nit fi muy gis nii fulla ak mu maa saf pam ma kiiw benn yoon lañ mas a daje boobu ñu Oustaz Aline Mbaye ñoo doon conférence lu mu def ci lu baax ne leen nañ jëli Iran moo ko dàq Oustaz Aline def ci lu baax nekk pam ma lañ ko tuddee ma toog rek mu ñëw toog di nit ku sew ku xees xaw ma ko Oustaz Aline Mbaye déy ma ne ma kii mooy Makiyu Faye moo toogal sëñ Touba fii ci Dakar mu wax fa kàddu yu rafet kàddu yu dal kàddu yu neex xam nga masaalig bi liggéey ko yombul Sénégal liggéey fi yombul nit ñi dañoo am neneen nu nu mel xoolal mu liggéey ko ba mu yéeg te li ma gën a neex nag mooy numéro yooyu mun Muntaxa ci lan ci di ko laaj ndigal def ko kilifa ni sëñ Muntaxa defoon kilifa ay kilifa keroog bi sëriñ Muntaxa di ñëw Dakar maa ngi fi maa ngi fi oto bi mu dugg c'est climatisé ñi ko doon teeru ñëpp doon ree lu nu reyul keroog mag yu fay lu mu reyul amul wuute na ak bi sëriñ Tuubaa jógee Ndar ñëw dakaar dem géej dugg ci bato bi ñu nar koo sànk ñaari yoon yi du benn jërëjëf yàlla jëf yàlla jëre jëf yàlla yaa xam nooy uufee sa jaam keroog ñëw sëñ Muntaxa dama imaginer rek ñëw sëñ Touba Dakar mu neex ma lool ma bég ca lool mu wàcc si def fi lu ma neex keroog julli gi nii bi mu doon jiite bi ñuy julli julli gi nit ñaa ngi ci kaw garab yi ak kaw miir yi ak kaw oto yi di roy ma ne la ma doon jàngale yépp ci at yi te julli ci garab sëñ Muntaxa wane na ko te yemu ca moo suñu maam Ablaye boole ko président Macky Sall jubale leen dëdd génn Taïb Socé génn sëñ ku baax la ku baax la lu yaa ngi noté yi may wax mm-hmm. arrièral nag ci aatu moom nga ma laajoon soxna si gis nga aatu ndokk ba ngay jigéen danaa di toll ci mbir foo xam ne su ma la bësee am lu damm ci yow danaa ciy tollu mm-hmm. aatu li may njëkk a def ginnaaw bu ma ko jaalee xalifa bi masawu xaritu xalifa bi la xam naa ci lu bëri ci tooguñu sëñ Muntaxa ku baax neex nga ko ku bëgg sëñ Tubaa neex nga ko ku liggéeyal sëñ Tubaa neex nga ko moom gis nga bëtam yi sëñ Tubaa rek aatu xaritu sëñ Muntaxa la Euh, gis nga liggéey bi mu ko sasoon xaritam bi sant ñan wax na ne aatu dama ko seet si mu jox ma xaalis nee na joxaat ma ne ma na nga wut oto yónni ko bërëb sàngam ma wax ko mu wax ma oto bi mu yónni bi ma wax ko oto bi ma yónni mu ne ma dafa tuuti nee def ko dund bu lépp ci xeetu dund nee na mu ne ma ñaanal ma sas wi bu yeggee wala bu ñu demee ba sama xel dal dana am lu ma la defal aatu jaar-jaaram dafa métti ndax ku bëgg a taxawal néeg foo jaar sonn waaye jërëjëf waa kër sëñ Tuubaa mu ñëw rek ne xisbu tarxiya dama ba kuréel guy yéeg rek wuti sëñ Tuubaa xisbu tarxiya kuréel gu yéeg rekk wuti sëñ Tuubaa ñépp jàppale ko aatu gisul kenn demul fen xalaatul leen wutiwul lenn kenn dong la teg bët sëñ Tuuba ak ki ko toogal sëriñ Tuuba ak ki ko toogal déedéet xaadimu rasuul rek ak ki ko toogal rek la teg bët yàlla dogal Omar la ca neex lan la mooy aatu wuy ji na boromam sañ mun taxaane nañ ma ko indil ti moo fa jiitu seetal loolu sañ mun taxaa lu baax rek la bëgg lu baax rek la bëgg moo fa jiitu moo ko taxaw jébbali ko borom mais taalibi loolu lay wut ànd loolu lañ ci wut dafa am góor gu baax sëriñ baaba Sy nee na topp buñ ko doon jaay fay fayam mooy geesu topp buñ ko doon jaay geesu mooy fayam safoo buñ ko doon jaay faale mooy fayam sëñ Muntaxa safoo na leen faale na leen geesu na leen xoolal ni mu def beeco suul ko fa ñu suul soppeem ba ak yaakaaram xool ni mu def aatu muy Ousmane Ousmane la tudd aatu gaa yi wax aatu mais aatu Ousmane mooy tur seetal niñ ko def sëñ taxaa taxawu sëñ taxaa taxawu la rek doy na doy na sëkk kat taxawu sëñ baa ko sant Mbàkke di ko am aatu am na ko fa doy na sëkk waaye nag am na ko fa waaye joxe na sas ah ñu fexe ba xisbu tarqiya gën a yéeg tarqiya la de ñafane gën a taxaw ñafane gën a jàmbaar ñafane bëgg li aatu am ñu am lu ko ëpp ndax nag mun Muntaxa seetaanu leen te xalifa bu fi ñëw seetaanu leen xalifa bu ñëw jàppale na na leen kon jërëjëf aatu jërëjëf aatu aussi sëñ Muntaxa encouragé ne Hizbut Tarqiyyah bu baax nee nañ yée nekk yée sëñ aatu su fi jógee sëñ Muntaxa koy julli ñun fooguñu woon lool xalifa Xaadimu Rasuul kon sëñ Bàmbaa ko julli <laughs> sëñ Tuubaa ko julli aatu Xaadimu Rasuul ko julli ndax xalifa sëñ tubaabu la jullee sëñ tubaa la jullee seetlu lool nag mun Muntaxa niiru turam seetlu lool yiw lool bëgg lu baax lool bëgg maamam lool sëñ tubaa waaw kon loolu aatu macha allah jàmbaar la xamoo ko ci dara bu màggal jotee mu taxaw rek taxaw temm kooku toog di xalifa ñu ziar la ziar bi ñu wane ci sëñ Sidi Maxtaar li mu yóbbu lool fa ko nit jëme ah loolu Sénégal mënoon nañ ciy dund ay congélateur waaye yow atumi newu fi loo ne is bu tarxee indi na ko ba pare yegg si nag ne doo wax wax jëwrinam ne ko waxal njiit noonu lay mel dangay ne ci kanam te jiital gaay la sëñ la sëñ waxoon damay ne seen kanam rek di leen geesu su ngeen su leen jiitoo xaar leen waaw loolu am na solo mais aatu ku baax la ku baax la ndax bu xalifa yi seedee mbaaxam rek baax na ah, baax na sëñ Sidi Maxtaar sedd na ku ñoom ñëpp mbàkke mbàkke yi sedd nañ ko waaw dégg nga la sëñ Bass Abdou Khadre wax loolu doy na ah la ko góor gi wax loolu doy na donc yooyu yëpp. ci ziar ba mu dem seeti nag yi moom sëñ Bass Abdou Khadre ànd ak gars yi seeti yëpp ñëw déy xalifa bi la fa ne man lañ fa yeew ci nag ñaata million la wala milliar xar yi nu mu toll doo xam sax fuñ ko jëlee nii la taali bi di mel dangay sawar ci sa sëriñ bañ a doon wax kat nekk jëf kat kon is bu tarxee jërë ngeen ji waaye am ngeen sas na ndax ndax ndax sëñ aatu mii war na kuy Hizbut Tarqiyyah mel ni moom muy benn war nay liggéey bi mu fi bàyyi di gën a yéeg ba ju ne aatu fi mu ko bon romb na fi kon am ngeen sas wu rëy ci kër maam Serigne Touba waaw kay. te yan kàddu ngay dénk euh, isbu yi nga xamante ne tey tamit ñoom it ay gone lañ euh, te fas yéene euh, aw ci yoon wi nga xamante ni moom la aatu jaar. am nañ ko jarul dénk gis nañ aatu <laughs> du gis nañ ko. gis liggéey bi ko góor gi sasoon gis nañ ni mu taxaw isbitar xeet bind na fu ne ah bu ne defar na ko liggéeyam yëpp mooy sëñ Touba ni mu def ba sëñ Mountakha taxawu ko jullee ko dénk liggéeyam sëñ mun Mountakha ngi dund yéen a ngi dund li aatu doon def yéen a ngi koy gis aatu dem na yéen a ngi fi des fexe leen lim fi bàyyi na gën a dund ngeen gën a attaché wu ci sëriñ si gën leen a bàyyi xel lu aatu nekkoon ngeen gën a nekk ay bu Tarqiyyah parce que yéeg la wax nag yéeg kon dee leen yéeg rek acca rek yéeg rek bu aatu daan def benn def leen fukk bu daan def ñaar def leen ñaar fukk su daan def ñett def leen fanweer takk leen seen digg taxaw ba ñu ne ah ñii dee nag aatu jàmbaar la nag waaye melu loon nii góore